barakaatu ñoo ngi nuyu yéen ñu ñuy seetaan ñëpp à travers différentes sites yi nga xam ne yëpp teew nañ fi ñoo ngi leen di nuyu te di leen di baalu àq ci at bu bees bi ñu dugg di ci siyaar oustaz di ko ci baalu àq moom it xam naa oustaz di la bàyyi nga saafanteeg soppe yi lay seetaan. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah <clears throat> ñu ngi nuyu sites yi fi daje yëpp ma tuddee leen daara yi fi daje yëpp mm-hmm. ndax site bu ne daara la. Mm-hmm. ci politique ci xam-xam ci yëpp nuyu ñu koy seetaan ñaan yàlla dolli leen dooleel dolli leen a barkeelal li ma daan ñaanit njiitu réew mi ma ñaanaat ko ko mu dolli leen jàppale ndax boo amee ay ndaw ñuy jéemantu danga leen di dimbale sa doom sax bu dee raam bala muy jàng dox da koy tete ba mën a dox kon loolu rek lañ koy ñaan moom président mu defal ñu lool bokk na ci li may ubbee xëy na ñu laaj ma ko ci tëj bi waaye ma ñaan ko lépp lu jëm ci diini ji ne ko moytu bu baax ndax ñaari ñi lay wër fi nga leen di xamee yàlla mayul la kàttan nga yegg fa mooy lu ñuy xalaat ak lu ne seen xol yi xamoo seen yéene xamoo seen xol maanaam doomu aadama dafa am kontóor boo mënta yegg li mu wax rek ci nga mën a jàpp mais xamoo lu mu nar kon maa ngi koy ñaan mu tey ci diine yi ndax diine dafa am borom ñu fi yàlla teg ñu di ko ko taxawul ni mu am ni ñu amee seen politique am conseil des ministres am assemblée am lépp ñu bakkoog ñoom ti kenn du ko laal ci waa diini maa ngi koy ñaan mu moytu diini ci parce que du ñi fi ne ñiñ fi uutoo tax te kenn tuutiwu ci Ahmadou Bamba tuutiwul Cheikh Alhaji Mali tuutiwul maam Cheikh Omar tuutiwul ak ñi ci des te tey ñi toog ñoom lanu toogal kon maa ngi koy ñaan rek na góor góor góorlu moytu leen bu baax luñ ko ci digalit bu ci yoonam nekk mag ñii ku leen gën a bëgg réew mi amul kon loolu dafay bokk ci li may ubbee xam naa dangeen ngeen ma laajaal looy tëjee lu tee loolu dinaa ko tëjee bu soobee yàlla waaye daal président maa ngi lay ñaan teya rek réew mi jaxasoo na coow li bari na waaye sant yàlla rek sunu borom dara du ko të dara du ko réer te tëliwul dara soo ko ko delloo rek noppalu soo ci jéemee leneen rek da ngay sonn sa bopp danañ leen ko firil ci ñaan gi sunu maam di sunu baay di sunu xarit di sunu sëriñ muy sëriñ Muntaxa ñaan gi di ëmb lépp lépp nekk ca ku ko déglu nag niñ ko leeralee da nga wàññi say tës-tës te xam ne yàlla rek a fi ne ngeen baal ma rek loolu laa doon nuyoo waaye ubbi waale ko damay bañ fee ba ma sonn te duma ko mën a waxee ni ma ko bëgg a waxee <laughs> dama lay dégg ci say dernier temps say discours ngay faral di wax euh, woy nga xam ne waykatu woykatu arabe bi moo ko wax innama tuxadu dunya xilaaba ñëwal ci pànk gi nga xam ne nii non seulement sénégalais yu bari je pense que ñoom la ko ñoom la ko sëñ Moustapha waxal waaw banque bi daal lu <laughs> xam nga dafa tolloog maam Babacar si moo ko wax ma déggee ko ci Serigne Cheikh nee na Serigne Babacar nee na ku noppi ñu xañ la sa àq suñ la ko xañee dëggaate la suñ la dëggaate gaañ la suñ la gaañee yàlla jéppi la su la yàlla jéppee génn ci yow pànk gi mooy duma bàyyi kenn ak sama bopp dofuma congaan duma la bàyyeek sama bopp donte am nga si site soo ma ca waxoon dara danga ma gis ci benn sit ma gën laa yenu àll ba fuuf ah lu xew jamonoy defante defante rek la waaye jamonoy waxtaan waxtaan la jamono xullenti xuleer rek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 jongoon naa kama jongala man neexul te damay bañ bu ëllëgee mu reetaanee ma ko jongo naa ñaari yoon man Iran Ndaw man mii ah su la ganaaru kenn ne nu ma gëm ko de sama ñaar loxo kenn tegu ci dërëm dërëm mu ngi nii set wecc leer nañ jongo naa deux man bañ rek di bañ rek ba ba may daje ki ma bind muy suñu borom bañ rek féeteek yàlla rek yàlla may suturaal ko defe ni lu ma am yaa ma ko jox xañ ma fa ma ne man ku ma xañ faaliwuma la faaliwuma la bu la yàlla terelee loo soxlaati ah? li ma wax Baye lu ma ciy xalaat dama ko koo may yàllaa ma ko jox ma jottali ko ko. man noonu laa mel. si kom ça mais nag ah doo jaar sama kaw jàll de su ma la wéqee dootoo jaar sama kaw. macha allah donc mën naa ci mbokk yi am na ñoo xam ni batterie yeeg yooyu. waaw xam nga euh, euh, congaan sëñ Muntaxa ku yeewu la. sëñ yeewu la. torop ku xam àdduna la benn bii mu joxe kutubun xalila ilmun kasiir am déet lu néew ci la nit ñi gën a sawar te way wi dafa ëmb lépp man zanna xayrallaahi yuxnii aw yadurru fa zaaka fii daarayni zoo këddin wa durin way wee tax ñu ne wa dur pour bañ mu daanu ndax bañ mu daanu wësnu bi yàqu lan la solo rasolo amoon na beneen bu mu waxoon xam nga maam dafa garaaw da daan wax ne ko yaakaar ne nit a yor say mbir nee na toogal nga xool xaadim daf ne man zan na ku yaakaar ne yuuxu nii dana jëriñ dara mbindeefi aw yadru wala mu mën a lor mbindéefi xayrallaahi kudul yàlla fa zaaka ka yaakaar loola ne am na keneen ko mën a lore ku yàlla am na keneen ko mën a jëriñe ku dul yàlla sëriñ Tuubaa na zoo këddin da juutal pyramide zoo këddin du tàqale ko coono fii daari ni adduna wa durrin du teqale ko lor fii daari ni adduna yàlla ko fi ba doo teqale ko coono doo teqale ko lor xaadimu rasul nee na yàlla rek ko yor kon ku yaakaar ne keneen dana jëriñ ko dul yàlla wala keneen mën naa lore ko dul yàlla xanaa kon corona dugg na <laughs> ah ku war a lore ko dul yàlla corona dugg na mm-hmm. corona du lor kenn xalifa nee na kaa yaa ngi wàññeeku ah lu ci ne taw baa ngi wàcc kaa wàññeeku te ñaar yooyu la tuddoon bu mu leen naqari ngeen yéegalaat kaa yi bu ngeen ko yéegee lii yéegul wàcc na ba pare ñu soof ngeen ko yéegee lii yéegul wàcc na taw bi wàcc na kaa wàcc na jërëjëf sëñ Muntaxa yow nag bu la naqari yërëm naa la te naqariwul kenn neex na ñëpp ñépp ah? ñëpp la neex moo tax way waa ngi nii man zan zann xayrallaahi nii aw yadurru fa zaaka fii daarayni zoo këddin wa durrin way wee tax ñu ne wa dur pour bañ wësnu bi daanu wa dur man zanna ku yaakaar ne ko yaakaar ne nii dana jëriñ aw yadru wala mu mën a lor kenn xayrallaahi ku dul yàlla sëñ Tuubaa nee na ah fa zaaka kii yaakaar ne am na ku mën a jëriñ ku dul yàlla mën a lor ku dul yàlla nee na kooku moom zoo këddin du teqale koog coono fii daaree ni àdduna ak wa durin du teqale koog lor fii daaree ni àdduna ak àllaaxira kii amul solo ngeen xam ko amul solo. ko ko jàngaloon da nga ko jàng de ñaw. ah mu mel ni am na beneen mbir bu ñu si mën a jàng si jamono ji yaa oustaz mooy li tubaab yi di wax message de motivation. Mhm. yaakaar naa mu ñuy wax euh, confiance en soi bu ñu juumul koy waxee. mu mel ni li nit ñi di sonn léegi di wuti leneen li ñuy wax ni moom la ñuy soxla ngir am motivation lii day wane ne rek Serigne Touba ak mag ñi jàngale nañ lépp ci message bi nga xamee ni yëkkati nga ko ci bayti bi nga xamee ni Serigne bi santaane na jamono ji ñu. waaw xam nga congaan mhm. dañ ne mag la mu wóolu moo koy may yaram dañoo faalewul mag ñi mag ñi it faalewuñ ñu te bu ñu mag ñi faalewul yonent bi duñu faale